li nuy xamal mbooloo mi senegal yi ñi ci biir ak ña ca biti ndax boo déggee ñu naan bët bu set ñu naan santé ngay grève collectivité locale yaa ngay grève boo xamul danga naan mais lu xew li xew moom lu yomb la dañu nuy tooñ di nu jaay doole te toll nañ foo xamante ni fii mënatuñ koo nangu tooñ bi mooy aw askan ay kilifa bu ñu dajee ba wax ba tënk ba juboo ci ku ne jox sa moroom loxo yéen ngeen dem la ngeen waxoon ngeen nekk ca ña ca des ay la yéwén dañoo war a def loola waaye non seulement la nga xam ne lii moo doonoon mbootum négociation ba mbootum fa ñu juboo woon dañ ko jëfandikoo pour galgal galgal bi mooy lan bu ñu ne indemnité de risque à tous les agents de la santé et de l'action sociale on n'a pas dit ca procès verbal ba au cadre aux agents du cadre de la santé et de l'action sociale aux agents de la santé et de l'action sociale maanaam ñëpp foo mën jóge koo mën doon bokk foofa di fa xëy di fa gont ca nga ba ñu demee ba di ko joxe ñoom ñu indi seenu interprétation ne non fonctionnaire yi rek la ñu wax te ñun SUTSAS ñun ànd gësëm personnel de la santé et de l'action sociale mu nga tàmbalee ca buntu ba ba ca morgue ba ndax kenn ku ci nekk saa boo xëyee boo ñëw la nga fa waroon def sooxe kon am nga fa njariñ kon du jaadu ñu ko mën a nangu ñu féetale ñii fii féetale ñee fee parce que noonu li ñu jàpp mooy bu ñu defee noonu ña nga xam ne ñii amuñu dañ naa gis nga ko dañu dañ noo xeexloo ba pare ñu jox leen ñu bàyyi alors que demewul noonu beneen jàngat biñ ciy jàngat ni ñu ko joxe dañoo duufal ña duuf yooyal ña yooy parce que ña ñu jox ci système bi ñooy ña ca tanele ña ñu joxut mooy ña ca gën a néew doole buñ ko tàmbale woon inversé ko sax jox ñi néew doole bàyyi ñi dinañ mën ne ñi ñi ci kaw muñ leen kon loolu ñu jàpp ne galgal la dañoo bëgg a jaxaseeg sunu njaboot te duñu ko nangu leneen di ci des boo waree senegal foo fi dem coow laa nga mel ni tulleeg màlle ñu naa lu xew ñi naa lu xew médecin infirmier directeur hôpital infirmier directeur hôpital médecin te loolu taxul ñu daje bu ku nekk yemee ca la mu yem def la mu war a def jàmm danaan ñooy waaye nag bu ñu la jiitalee ci béréb nga yor martaba ga bëgg koo jëfandikoo lu jëfandikoo pour foofa dox lu dul nga jëfandikoo ko pour di néewal ña nga xam ne ñi ñoo nekk ci sa suuf doole loolu duñ ko mën a nangu parce que kenn ku ñu laal ci suñ organisation ak foo mën nekk ak ku ko mën def suba ba ngoon ña ca des ngi say tànk loolu moom na leer ñépp dañu yaakaar ne rek ñi nga xam ne ñi président de la république ñoom la jox ndigal xëj na ñoom ñoo ñuy galgal waaye ñu ngi koy galgalaale ndax moom day yéene mat na ndax bu nee def leen dii togg naa ba mu ñor séddale leen bu ca ñiy am kee amul amee ca séddalekat yi la te loolu ci kawam la jëmaat rek leen rek lañ ko mën a reprocher coow li ba mu amee ba nëgëni kenn ku nekk ci àddina bi ku ne xaw ma nu mu demee amut kon defewoon nañ ne li ñu naa ci tubaab siffler la fin de la récréation séntu woon nañ ko ci moom waaye bu fekkee dafa seetaan ña ca des seetaan xam naa ne dañ ne bàyyi leen leen rek bu ñu gréwee ba sonn bu ñu yooxoo ba sonn dinañu toog noppalu wallahi ña leen jiitu woon am na ñu ko fa ja ñu ñu ñu ko fi essayé woon waaye la tooy ci ñoom la jóge de la tooy ci ñoom la jóge parce que ñun peeg sunu àq ak sunu yellee duggul ci sunuy loxo du nu bàyyi ndax tooñuñu kenn ñuy woo citoyen yi ndax ku koy faju ji faju woo ñett di ci seen bureau seen yoon du ca nekk kon ñooñu bu ñu xamee ba pare it war na ñuy yëkkati seen kàddu ñi tooñ ñu ne leen yéen a tooñ ba pare suñuy ñaan ña ca def soog na a ñaan waaye mënuñ ñëpp na cel mel ni ñuy sot waxuñu kon loolu itam lu ñu séentu ci population yi lañu parce que agent de la santé et de la ñoo gën a weex donc kenn ku ne dégg nga coow li bu erreur bu ndaw boo ko defee kenn du la ko baat ñun dañoo tànn li nu tànn ak jaamu yàlla la waaye legetu neen naxu ci kenn ku nekk la ngay for ca ngay dundal sag njaboot kon doo boof ca la nga boof ba pare ña nga xam ne ñii seen àq foofa la nekk nga nga bëgg caa boof wala nga xañ leen bu sotti benn yoral nañu àq ci système indemnitaire bi na ko procès verbal ba waxe woon ñi doon séddale defuñu ko bi ci des fii ak fii ak feneen am na ñoo xam ne ñii dañ leen da joxub martaba au lieu ñu jëfandikoo martaba pour defar ñuy noggutu ay nit te loolu xewi na fi ak njàm xewi na fi ba ñëpp yeewoo kenn ku nekk xam la nga moom la fi jeex te kenn kuñ bu doon kenn nit la foo mën nekk buñ la doggatoo ña ca des dina la fa fekk ñëpp nag sunuy mbokk lañ sunuy xarit lañ ku jiite yéene nañ la sa njiit ku jiite dinañ la jàppale waaye ñun ñi ñu jiite it nañ de bàyyi seen àq waaye buñ la jàppalee warmaal la weg la nga bëgg a toog ci sa àq toog ci sa àqi moroom loolu duñ ko mën a nangu fonction publique locale mooy li ma doon wax ci collectivité locale yi parce que daawaati jéeg 2019 lañ ko commencé woon xeex bi ko xeex ba son excellence le président de la république wooñu digéeg ñun wax ñu ba mu fa jógee këyit yi li bokk ci fonction publique locale yépp signé nañ ko waaye application la kenn kenn mënta te fonction publique locale bi mbóot mi lu mu doon ay fonctionnaires lañu ci collectivité locale yi la mobilité des agents maanaam su fekkente ne maa ngi Mbàkke su ma bëggee ñaan affectation ñi nga xam ne nii fonctionnaire ministère de la santé moom ñoom la ñuy def su ma bëggee jóge fii dem ndakaaru ma demandé affectation suñ ma affecté ma ma ma dem Dakar waaye fi mu ne nii ci état bi ñu toll ku nekk Mbàkke fii mënuñ laa affecté Dakar wala boog dañ lay jëlaat foofa di la fayaat sob salaire fii da nga koy perte te yooyu yëpp texte yi mandargal nañ ko jëmmal nañ ko application rek moo ci def ñu di leen puus di leen ñaax ñu appliquer ko bu ko defee jàmm ne ñooy état bi daal moom moom ci boppam moo jëkk di jalgati ay texam parce que am na app boo xam ne bii boo ko jëlee nit contractuel li ñuy wax durée déterminée bu amub app bu amee amaat war naa nekk contrat à durée indéterminée mu nekk effectivement un agent de l'État waaye ba léegi contractuel yi nga xam ne état moo ko defal boppam waxuma yu ñeneen de état moo ko defal boppam ba léegi am na ñu de ay fukki at fukki at ak juróom at mu jot à la ñu dem daje commission bi région médicale renouveler seeni contrat kon yaa xayti mu laane loolu jaaduwul yeneen contractuel yi ñu ngi jógee ci collectivité locale yi bu ngeen gisee ñu waxoon leen léegi ne mënuñoo dem bàyyi waa collectivité locale yi parce que li ñuy recruter li ci gën a bari ci système de santé bi lañ leen di dugal ñu di fa def la fa ñëpp di def kon war a am li àq ji nga xam ne ji ñëpp fa lañ ko am ñeneen ñi ci des ASC ñu di leen wax agent de santé communautaire ñooñu li ëpp ci liggéey bi wallaay boo demee ci béréb yi ñoo koy def ko ñoo koy def kon ñooñu itam am nañu àq joo xam ne ji dañ leen ko yaral amoon na bi ñu réviser commité de santé yi def comité de district sanitaire ministre ba fa woon dafa defoon ab répartition xam ne recettes yi as yi vingt pour cent la ñuy séddoo am ñoo xam ne ni xëj na am na ñu doon am sax junni wala ñi ñaari junni ñu ci gën a woomle am ñeenti junni xam nga ne borom kër buy liggéey du wacc ci liggéeyam dem wuti leneen weer dee nga jox ko ñe junni xool sax waru ko waru koo nangu waaye ñu ànd ak ñoom di ko xeex parce que ñoom ñoo ma ne xam nañ li ñuy dund di ko xeex di ko xeex ba barki démb rek jot nañu ab note madame le ministre de la santé ñu di ko remercier quand parce que nit bu dee bu defee leneen nga ŋàññi ko bu defee lu baax it da nga koy da koy wax signé na ko yónnee ko ci région médicale yeeg yi pour ñu def jëlaat recette yi nga xam ne ñooy dugg ci service yi ñu tasaat ko ñi doon am vingt pour cent léegi ni mu ko répartir egg na ba cinquante cinq pour cent kon loolu lu am solo la luñ mënta ñàkk a wax loo xam ne mayuñu ko dañu koo xeex ndax bu ñu noppi woon waxuñ dara rek lawan mooy lawan mooy continuer